adore. ñu bëri xam-xam bi si topp nag kon ñu jox leen nijaay bi nga xam ni suñu papa lay bu moo ko woyoon jërë jëf ci yegsi bi kontaan nañ trop lii am na solo trop ci ñun xale yi nga xam ne dañuy soog a door loolu ñàngat la ñàngat bu rëy la si ñun mënuñu leen a fay yéen sunu bàyyi li lépp seen liggéey la yàlla na yàlla seen fan yéen ñi fi des li xam ne dañoo dëdd nag yàlla na yàlla yàlla def xare leen àjjana te ñu fi bàyyi barkeel ci barke Seydina Mouhamed amiin jërëjëf xeeñoo lu neexoo Margot Fall boo jegee njaga yow mu kontaan mystique euh, l'African Star Orchestra ak ñaari titre Laye Mboup yu ñu joué léegi Yaxya Laye Mboup Laye Mboup euh, moi j'ai pas eu l'honneur de jouer avec lui euh, mais il fut un propulseur de de cette de cette tradition sénégalaise prenant des thèmes wolof qu'il chantait de l'actualité de manière très très très traditionnelle qu'il faisait euh, adapter dans la musique euh, moderne plus ou moins moderne afro-cubaine musique classique musique un peu de manière un peu pourrie en général mais c'était un compositeur exceptionnel parce que il fut je dis bien il fut je mesure mais mes les mots que je dis il fut l'un des chanteurs. Le premier, sinon le premier, à chanter dans un orchestre moderne, avec des instruments modernes. C'est l'un des premiers à le faire. Mmh. Et apprendre les morceaux chantés en Wolof qu'il a introduit dans la musique, plus ou moins salsa, plus ou moins jazz, plus ou moins rock. Mais ça, c'est une musique, c'est très profond, c'est très recherché, ça. Ouais. Euh, Baobab, orchestre Baobab, euh, c'est aussi Rudy Gomis euh, tout le monde le connaît lui aussi témoignage u soxnaam ah Célestine euh, Tendeng avant ñuy continuer orchestre Baobab xam naa ne mënuma ci tudd ki bàyyi kee waaye sama digganteeg Bala Sidibé toll woon na boo xamante ne dafa newoon ne man maa sant Sidibé moom moo sant Tendeng su ma wooyee rek mu naan ma Sidibé fula ma naan ko Tendeng Tendeng Tendeng Muntaga il m'appelle Célestin pour te dire lien yi ma am ak ñoom ba ci seen manager vraiment ay nit yu yaatu lañu ñun jabaru sen musiciens yi génn àddina sa fu ñu toll dañuy dañuy ne meeku di set ci nan la ne man CBAO laa doon liggéey orchestre ba ba tëgg soirée CBAO mais dew ma pour vous dire dew ma jëm si yàlla njuga jëng bi ma fa wëy bi ma tàgg mu ñëw mu ne ma damaa ñëw ba ci noppam ne ko ki ngay tàgg mu ngi nelaw après mu am laaj lu tax ñëwuloo ma ne ko man maa vie professionnelle boolewuma ko ak ma vie privée ndax man su may xëy di xëy CBAO Rudy du ma topp Rudy suy liggéey dama koy bàyyi mu dem liggéey man su may liggéey damay dem liggéey bu ñu dellu see ñu dund suñu lu mu yor da koy séddoo lu mu yor da koy séddoo nit ñi bëgg xale bëgg jàmm bëgg reetaan dëgg la tàng na kol mais tàng xol boobu su waxee léegi ba pare pare na mais tànk nag tooñoo ko ko doo jot moom. dire grand merci à Youssou Ndour parce qu'il a toujours été là pour dans la discrétion. ndax tey bu ñu demee ba delluwaat doon orchestre Baobab Youssou Ndour am na ci wàllu bu donc euh, te moom bokk na ci ñaa newoon. l'orchestre bat dès le départ. Euh, merci à tous ceux qui, dans ces moments de faiblesse, ont été là, qui ont compris sa maladie, qui l'ont accepté. Merci à sa famille, sa famille biologique, ses enfants, ses frères, ses cousins, parce que c'est quelqu'un qui était très famille. Et Je demande aux gens de prier pour lui. C'était un être humain. Il avait ses faiblesses. Et que si par mégarde il y avait quelque chose qui le retenait loin de Dieu, qu'il a prié jusqu'à sa mort, qu'il le lui pardonne. Madame Rudy Gomis, euh, et on retourne tout de suite euh, avec euh, l'African Star Orchestra daal di jël wayu Rudy Gomis ci biir Baobab ci biir orchestra Baobab la chanson s'appelle Jinma Jinma jiin ma jiin ma jiin ma bay buur faalo malikumba faal ma jiin ma jiin ma bay buur faalo malikumba faal balis ah, ma faatu jiin ma yaa ma dam faatu ji bur faalu maa ngi dund faal ci ndeela jin ma jin ma jin ma jin ma bay bur faalu maa ngi dund faal jin ma jin ma jin ma jin ma bay bur faal faal jinma jinma jinma jinma bay bu faalo malikumba faal Célestin jinma Célestina jinma yamadan jin jinma jinma bay bu faalo malikumba faal jinjela jinma jinma jiin ma bay buur faalo Malick Coumba Fall jiin ma jiin ma jiin ma jiin ma bay buur faalo Malick Coumba Fall candela mami kumba fande candela mami kumba fande candela jabela Merci, merci, euh, African euh, Star Orchestra. Euh, li digu mis bi ngeen euh, jëlaat ni du yéen rek parce que ci biir boo yi nekk euh, orchestre Baobab instant bi Papino moom it day faral di reprendre wayu Rudy Gomis Papino ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Babacar. yow yaay sax doomu Muntaga présenté woon na la sànq lu tax nga ngay tàmm surtout reprendre Rudy Gomis. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. Euh, période yi lu tax may gën a reprendre ay morceaux je pense que moom moo ma formé comme loo Alpha doon wax sànq Père Yahya ñoom ku si nekk euh, dafa am koo féete woon mu am benn formation bi nga xamante ni yaa ngi koo jege di ko am si ñoom ñoom ñëpp te lu ma gën a bëgg wax tey mooy ci Baobab une institution parce que Baobab dafa nekk benn institution mooy que nii ñoom ku si nekk format formateur nga ñoom ku si nekk tey boo xoolee Alpha Jack Alpha chanteur traditionnel waaye guddi yi Alpha amul lu mu mënul woy ci àdduna amul lu mu mënul woy ci àdduna te loolu da ko am ndax lu yàgg ànd ak baobab nga xool musicien baobab yëpp ñu si nekk ku si nekk boo ko dégloo dangay xam ni Baye def nañ ci yow nga nekk un grand musicien ndax jeu ku nekk boo ko dégloo rek li nga xam ni am na li nga xamante ni ñeneen ñi amuñu ko donc pay ñoom dañoo nekk ay formateur nekk ay grand musicien nekk ay nit ñu mag te bëgg naa dëgg-dëgg comme lu ma bëgg wax rek mooy bëgg naa réew mi delloo leen jukkal mooy tabax école dee ko orchestre Baobab mag ñi waaw ndax boo xoolee jeune jeunesse bi ñu ci bëri ñii ñu ngi ci sport bi ñii ñu ngi ci musique bi donc tey bu ñu tabaxee école tuddee ko orchestre Baobab mag ñi parce que ñoom réussir nañ jël suñu musique yóbbu ko un peu partout dans le monde hmm. fu ne lañ yóbbu suñu musique ñi fu ne lañ ko yóbbu donc man daal loolu laa amoon yéene tey wax ko Baobab une institution école orchestra Baobab paa yi joxe xam-xam bi ndaw yi jëriñu. on est tellement d'accord avec toi Papino merci merci pour ton pour ton témoignage alors euh, yaa ngi tudd bitim réew yaa ngi tuddu euh, euh, taxawaayu groupe bi jamono yi Thierno les tournées les actualités du du Baobab. am na ay temps li ngeen daan nekk bitim réew sax moo ëpp li ngeen daan nekk Sénégal fu activités yi toll. oui euh, fi mu nekk nii on est on est même bientôt on va bientôt finir euh, un single boo xam ne bi euh, presque pare na sax. Mhm. mais ñëwagul fii. et puis duñu entamé benn un album mais defuñu ko complètement. Ah. parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La dernière fois, on est parti d'ici le 24 juin. On le 17 septembre. On a fait trois mois de tournée. Et tout dernièrement, dem nañ fi euh, Georgetown. Aux États-Unis? Non, euh, vers en Amérique Amérique du Sud. mm Donc loolu yëpp tax na on n'a temps. Mais on a profité pendant la tournée, la dernière tournée. Mhm. à, à Paris, on a réussi à enregistrer trois morceaux, trois nouveaux morceaux. Mm -hmm. Et euh, en continuation en Allemagne, euh, en, en, Angleterre, on a fait un clip pour Khamnebi. Il y aura il y a trois ou quatre morceaux UBS. On va les sortir bientôt. Et, euh, et bientôt, ça, le le et le on sera à Paris, à Bordeaux. Et le 31, on nous demande même d'aller de, en Angleterre pour le 31 décembre. Mais le Yobluchichet, on va être obligé de retourner à Dakar pour nous, mieux nous préparer et puis nous concentrer sur l'album, sur le, sur le clip qu'on va sortir. Mm -hmm. Parce que nous, Lolo, on va sur les tournées, réaliser d'ara par rapport a beaucoup de projets hein, -hmm. dans l'avenir. te ñu ngi ñaan on souhaite que incha allah yëf yi jaar yoon. Mm-hmm. ma ci profité rek pour lancer un message. orchestre Baobab ñu ngi fii ñu ngi naan institution la mais on est un peu délaissé quoi te pourtant one capable de créer des choses ba pare ay sponsoring et tout ça on a besoin de ça soxla nañ ko il faut ñu taxawuñu parce que. Dieu merci, on se on, nous ne nous plaignons pas, mais il, il faut un coup de pouce. Un orchestre qui a pendant ans, mhm. et bu léegi ñuy résister di jàpp continuer, il faut ñu jàppale ñu. Mhm. Et les pouvoirs publics aussi, parce qu'on entendra voilà. le ministre de la Culture voilà. dans cette émission tout à l'heure, mais séquence hommage toujours euh, Orchestre Baobab ak euh, ñi ko yore woon. Mm. On ne peut pas ne parler de de de Médine euh, Euh, témoignage bi ñuy am tey témoignage euh, dans cette émission la et en direct avec euh, doomam bu bu jigéen di Aminata Diallo taawam. Aminata ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi fi di nuyu sama papa yi ci ñoom leen gis nii ndax sama xel dem na tey ci Medoune Diallo. di kontaan lool lool lool ci sargal bii ngeen koy defar sama papa nag nekkoon na papa bu baax bëggoon njaboot macha allah man nag li ma ci gën a loo xam ne du ko mës a fàtte mukk mooy euh, bi muy génn àdduna ndax ci jour le 11 février sam papa si la juddu ci jour boobu si lañ ko dëj exactement su ma ko nee pap yow le onze de ce jour anniversaire mu ne ma bu booba yéen ñëpp famille bi ngeen ñëw toog ngeen togg ngeen lekk boobu ndekete xam na ne day dem. 2017. waaw mhm. xam na ne day dem mu jour anniversaire am pap bu baax bëgg njabootam. yamale njaboot le jour de ses 69 ans. waaw 69 ans muy jour samedi bi après jour dimanche bi muy le 11 si lañ ko dej pap bu baax. man de mun naa wax ne may taawam bu jigéen yaayam bu jigéen laa woon ndax lu amoon lu ko mettiwaan daf ma daan woo di ma wax bëgg njaboot tabe loolu alalam du ko boole ak kenn du ko boole ak kenn li ma mën a wax daal te macha allah waa Sénégal xamoon nañu kan la moom Medoune Diallo man ñu ma naan jéemal nga sa pour nga jàng wayam mais man mënuma ko am naa sama benn rakk boo xam ne sama rakk yépp sax ñu ngi Paris mais am naa ci koo xam ne muy Mansour Diallo mm-hmm. kooku da koy rendre hommage chaque année ci internet bi muy Mansour Diallo mm-hmm. waaw man daal kontaan naa daal. jërëjëf papa bu baax la amoon. Mhm. papa bu yamale njabootam. Mhm. njabootam yëpp ay xaritam lañ tey ku ci toog nii kaay nga ñëw xam naa ne danga bànk teel. Mhm. moo tax euh, li fi jógee nii ah yëg naa ko de ñun ñëpp yëg nañ ko mais jàll moom boo waxee xol bu rafet la yor te nit bu direct la woon nit bu direct la woon. xol bu rafet la yor. ñu ngi lay ñu ngi gërëm Aminata. ñu ñu euh, ñu gërëm la ànd ak euh, orchestre euh, Baobab ba tey. Mhm. ci seen émission spéciale tey bii. Café Musique nouvelle version. Mhm. ànd ak ñoom Biram di African Star Orchestra interprété benn wayu Medoune Diallo biir Baobab feccal waay sama xol.

tey boo ñëwee xale bu rafet kaar yow lay woyantoo yow boo ñëwee tey boo ñëwee xale bu rafet kaar yow lay woyantoo feccal waay sama xol ku lamb yaa tey

man nopp naa la fonk naa la bëgg naa la wóolu naa la ne feccal waay sama lamb yaa tey man nopp naa la feccal waay sama xol bu lamb yaa fonkoon naa la bëgg naa la xale bu rafet gaar yow lay wayantoo feccal waay sama xol ku la bayaate yi man noon naa la ah feccal waay sama xol ku la bayaate yi man noon naa la feccal waay sama xol ku la bayaate jaajëf merci merci les gars euh, waay sama xol euh, Medoune Diallo wayaloon ko madame euh, madame Diallo l'orchestre Baobab paa yi la mais boy tout à l'heure dégg ngeen Papino Boléro guitariste solo dans le groupe aussi avec toi on voudrait parler un peu de justement l'intégration des jeunes dans l'orchestre Baobab est-ce que c'était une intégration facile Ok. Merci, euh, je salue tout le c'est une très belle question parce que euh, Baobab, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, c'est toute une institution. C'est une école que nous, on a adhéré. certes, on avait un petit bagage, mais on est venu beaucoup apprendre avec l'orchestre Baobab. Parce que intégrer l'orchestre Baobab, tu ne viens pas jouer ce que tu veux, tu ne viens pas t'impressionner. mais tu viens comprendre l'esprit de la musique de Baobab, l'authenticité. Parce que nous, on a vu des groupes de salsa qui ont joué, ou des, des groupes cubains qui ont joué, euh, mais tout de suite, quand la musique de Baobab passe, tu sens qu'il y a quelque chose d'assez profond qui est assez différent. Donc, c'est ça le secret de Baobab. Alors, moi, quand je suis arrivé, Nick Gold m'a dit, ouais, joue comme tu peux, joue ce que tu veux. Mais j'ai voulu apprendre. j'ai voulu découvrir le, le, secret qui est dans la guitare de Barthélemy Tissot, ce qui est le secret de la musique de Baobab. Alors, ça n'a pas été facile, on a pris des mois pour travailler les morceaux, mais quand même, on y est arrivé. Et aujourd'hui... Il est déjà dit que Tissot, c'est pas facile. Hein. Ah non, ah non, non, du tout pas, du tout pas. Et je félicite déjà le guitariste. Merci de l'applaudir quand même, s'il vous plaît. qui, qui nous a vraiment émerveillés, qui nous a impactés. Franchement, ce n'est pas facile de relever les solos d'Atisso. Et la couleur, le son, c'est assez capital. Mais par la grâce de Dieu et par les conseils de nos papas, avec la discipline qu'ils conseillent, on arrive quand même à donner un tout petit peu du meilleur de nous-mêmes en amenant un plus dans la musique de Baobab. Merci. Euh, on enchaîne d'ailleurs, euh, puisque le, le baobab, on est tous d'accord, c'est un patrimoine. Il y a des choses à faire quand même. Il ne faut pas laisser mourir ce patrimoine-là. Euh, Tchombay, comme yow yaay euh, chef d'orchestre il faut nga wax ñu tuuti ak ci sa gars parce que euh, le public euh, les membres du Baobab ñoom ñëpp apprécier nañ li ngeen di def boobaak léegi mooy wayu Baobab yi ngeen reprendre bi ñu tàmbalee ak léegi orchestre bi nga xam ni Pape Cissé moo ko sànc tudd Africa Stars Orchestra te nga xam ni yaay yow yaay euh, chef d'orchestre bi mën nga ñu wax euh, euh, nu mu demee ci biir on sait que ni da ngeen di faral di di reprendre ay wayu artistes africains yu mag Sénégal ak feneen mën nga ñu wax nu ngeen di liggéeyee ak li ngeen bëgg fu ngeen jëm. waaw foofu moom dinaa si sawar a tontu parce que bu demee si côté liggéey bi moom dinaa la xamal ni Pape Cissé il est amu si caaxaan ku am volonté la ci li muy def ku bëgg li muy def la ku ci sonn la aussi parce que ñun ñii ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp Pape du maye dara wax dëgg yàlla Pape du maye dara gëm na li muy def bëgg na ko def na si jomam def na si xaalisam def na si jotam. te boo xoolee lii ñuy def nii ça fait trois ans ñu ngi koy répété groupe bi tey bu ñu xooloon ñu fi fi ñuy jaar ñëpp war na mun a def trois groupes parce que boo xoolee début bi y avait ñoom Pape Oumar y avait Sow y avait Ibou ah ñoom laay loo orchestre bi yëpp Malick mi bassiste ak man ak ñii donc ay dafay tout le temps moom dafay dafay day day day initier affaire yoo xam ni day day day am day am doole quoi dafa dafa def ñaari groupe mhm. amoon nañ benn boo xam ni ah, ma mun nañ ni presque ah, kooku kii la quoi acoustique la waaw def nañ sax benn album doon rendre hommage ay ay Sting ay affaire yooyu yëpp. Mhm. def na tam boo beneen album boo xam ni ndaame loolu la tuddoon booba xale yi ñoo ko njëkk a def comprendre nga muy koo xam ni nag ku gëm lii muy def la ku si investir la. Pape Cissé wax dëgg yàlla man dama ni Pape Cissé bu nekkoon musicien dana metti waaw mm. ah oui parce que Pape du maye dara wax dëgg yàlla gëm na li muy def boolewu ko caaxaan boolewu si lenn mm. te ba mu ko tegee ba léegi Youssou déglu na ko déplacé wu na sax ñëw ba répétition studio bi ñuy répété ñëw xool daal di apprécier affaire yi bu baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. te gàttal daal Pape nekk na koo xam man dama koy ñaanal yàlla. waaw yàlla na ay pexeem yëpp yàlla tekki loxoom. Mm-hmm. gëm na li muy def bëgg na ko di ci di ci def xaalisam di ci def alalam Pape Cissé talul njabootam talul jabaram talul ay doomam liggéey rek. liggéey rek merci Thio mais. mais xanaa du baobab rek ngeen ngeen ñuy baaxee tey. Euh, la ah loolu nag moom. laalal ñu tuuti ay. ay ñoom kaay ma wax la Baaba Maal. xam nga trois ans de répétition du deux jours. Mm-hmm. gars xam loo bëgg nañ jël tuuti rek nañ jël tuuti rek woon gaa yi uti ne du du baobab rek tellement nag tey bés bi bésu baaw baobab la waaye yàlla xam na ni day li ñuy tëgg Omar Pène a ngi si Youssou Ndour a ngi si Salif Keita ngi si Kumba Gawlo ngi si Baaba Maal a ngi si Thione Seck a ngi si Ismaïla Lo a ngi si may leen ñu Baaba Maal ak uh, Omar Pène ñu xool waaw kon xaar gaay nañ bool benn uh, Omar Pène ban ngeen bëgg ñu def aca bokk kon nag doomu gaynde moom ñu may leen ko tuuti ngeen dégguñu xool may di nga xam ne mooy rakki Omar Pen Pen ngaa la tireur tirailleur may naa la morceau bi waaw dina présence bu Babacar Dieng di artiste bu mag mu nga nee toog ci ginnaaw ok waa di ko may fans Omar Pen yëpp euh, morceau bi ñu ngi ko koy may Thank you. tukulóor yi ana xaal pulaar yi yi ma moji mbaaba moji bi ngeen bana taam a anani hoto mbaɗen ko anani aduniya ko jamano saji jamanu ma fewne حسين يتيما نام أفتد جنب nilibu kuisafiri Afrika Allah watabo anani Hota madengo anani Jame mbande futa Futa ikumbalore Jame mbande boke Tajimi pani dimbe Dune amelo sangwa Aliure ngejiloi sadi liwuji jajaji jamme balde josati kino weli fota jamme balbe bokke bokke saram Fall bisal merci merci euh, merci Biram merci euh, Fatou merci Saliou euh, Mal bi ngeen jam nii c'est Njilou ah. Njilou ça rappelle euh, Guelwaar de Sembène Baba Mal l'a joué devant Nelson Mandela à l'occasion d'un de ses anniversaires am na am na solo euh, ñu fàttali mbokk yi ne orchestre bi ngeen gis di African Stars Orchestra. Euh, ñoom lañu àndal ci hommage à Lors Christa Baobab ñi fi jóge ak ñi fi des te yàlla ñuy ñaan mu wéral leen te nu yàgg fi lool lool lool lool euh, orchestre bi nag euh, foog naa tey ñoom biram ki leen solal mooy Kalmiz est-ce que mi ngi fi sax moom je pense oui Aïcha borom Kalmiz salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp di am contentement teew si plateau bu toll nii di remercier di koy euh, di jëkkër remercier sama tonton Pape ni ma gis à travers les réseaux sociaux bon contacté ma pour mën a liggéey ak ñoom yéen gunge si.